bismillahi rahmaani rahim waa sa sëñ Mbàkke ni mu ko waxee rek kon sëñ Muntaxa bi mu naale naal bi mu naal da ko dénk Rawdu Rayaahiin fekk sëñ Saam junj na ko Rawdu Rayaahiin ba mu sosoo rek sëñ Muntaxa dafa ànd ak ñoom doon seen jëwriñ jamono sëñ Saaliw jamono sëñ Alaaj Baara jamono sëñ Cheikh Matilay yëpp mu nekk seen jëwriñ jamono sëñ Cheikh Mati lay fekkoon nañu tàmbali cee liggéey ak moom mun Muntaxa ci dekkal université bi sëñ Abdou Lahad taba taxawaloon ànd nañ ceeg sëñ Muntaxa lu tàmbalee 2011 di ci liggéey ba bi ko sëñ Cheikh Mati lay jëlalee boppam kon raw doro yaaxee nag sëñ Muntaxa dañoo yàgg ànd lu jiitu lii li taxit mooy dañoo bokk yitte sëñ mu taxa xam-xam day yitteem doon naa wax ne sëñ Muntaxa xam-xam moo nekkoon yitteem naka jekk waaye bi mu nekk xalifa général des mourides nag xam-xam daa nekk yitte yoon wi léegi ndax moom mi jiite yoon wi mooy moo tax mu teg ko ci loxo rawtu yaaxiin ba mu koy wax sax dana yéen dama leen cee fekk loolu wax yéenam la waaye dëgg-dëgg noo ko ci fekk ndax rawdulaan yi ci ñi ci nekk ñëpp bi ñuy feeñ fekk nañ ko moom mu mu nekk ci xam-xam waaye waxin la wane ne bi mu nekk régional de Mouride daal fekk na noonu tam nekkoon di yëngu ci loolu bi mu ko dénkee rawdu rayaax yi nit ñu xam ne lu ñu leen dénk gi li muy firi mooy nañ ko taxaw ba mu sotti waaye képp ku ci man dara rek da caa war a bokk ndax rawdu rayaax tam naka jëkk noonu lay doxe doxe ci ay liggéeyam liggéeyu boppam sax du rek ñi ci bokk ñoo koy sottal lu muy liggéeyal boppam sax lu ci ne lu ci nit man rek da ko cay ku ca man dara da ko cay boole rawatina nag lu ko xalif général di dénk mu xam ne kon mbirum ñëpp la moo tax ñu xool wàll yi nga xam ne yëpp liggéey bi dana ko laaj lu ci keneen bëggoon taxawal tam ci loolu lay tënk loolu mooy système bi ci biir système bi nag sëñ bi da cee tànn lu mu bëgg jëmmal li mu bëgg a jëmmal nag mooy nekk ci complexe bi complexe bi la mu fa tànn moom mooy daaray alxuraan daaray xam-xam muy jàngale njàngaleem cosaan ak UFR ci tàmbali bi UFR buy jàngale euh, lislaam ak arab ñett yooyu la sëñ bi di tàmbalee ci complexe bi kon ñett yooyu ñooy nekk ci complexe bi ci tàmbali bi waaye système bi nag ëmb nañ ñett yooyu ëmbaale yeneen ñoo itam foog naa loolu mën naa tënk li nga xam ne def nañ ko ci li am solo nag mooy ñëpp ko bokk ñëpp ko ci bokk képp ku ci am xam-xam ci njàngaleem alxuraan wala njàngaleem xam-xamu cosaan wala njàngaleem école wala njàngaleem enseignement supérieur ku ci am xam-xam rek ak man-man biñ koy liggéey boole nañ ko ci moo tax bi liggéey bi sottee doon liggéey boo xam ne liggéey bi ñëpp la liggéey bi sotti na dëgg-dëgg daanaka ba tey tey buñ newoon tabax ngi nii bu sotti bu noppi danañ mën a joxe ñun lay tax ñu mën faa jàng bu ëllëgee ci saa si maanaam bu subaa bu jotoon caab yi tey ëllëg sa daañ mën a jàng ndax dana fekk la ca des lépp noppi na lañ fay jàng ak ña fay jàngale yan profil lañu war a yore ña fay jànge itam yan critère lañ leen di recruter yooyu yëpp am na euh, liggéey nañ ko ba noppi ba xëy na mën naa am daal ay rafetal mën naa rafetal daal ay rafetal moo ci des waaye saabu liggéey bi noppi woon rek tabax bi tabax yi bu noppi woon rek ñu mën daal tàmbale jàng euh, bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, mbokk yi ci yëngatu yi murid yi baaxoo gàttandoo màggalu Tuuba miin ngeen ci fukki at yi ñu weesu daayira Hizbut Tarqiyyah di amal li ñuy tuddee ay grande exposition sur le mouridisme ren nag ñu tànnal ko benn thème central boo xam ne dafa jokkaloo ak gis-gisu sëñ Mouhamadine la Muntaqa ak sumbam bu am bii solo ci wàllu xam-xam bi loolu amee ñoom ñu jokkoog waa daayiratu Rawdu Rayaahiin ngir jàppalanteeg ñoom ci luy dundal grande exposition yi ci waaru wi nga xam ne moom la leen sëñ Mouhamadinal Mountakha féetale mooy xalaatal ko ci luy taxawal luy sottil sumb ba bi loolu amee ñu am ak ak ñoom ay réunion technique ba xam seen commande xam leen bëgg ci daayira Rawdu Rayaahiin eh, mu bokk ca la daayira bi sasoo woon waa Rawdu Rayaahiin mooy tànnal leen ay contenu maanaam lépp luñ fay gaaral ci écran yi ak ci tableau ya daayiratu Rawdu Rayaahiin sasoo ko bokk ca lañ sasoo it tànnal leen ay tem conférence ak ay panel wutal leen ay yi ak ay participants ci panel yi wutal leen ay équipe yoo xam ne ñooy gunge ña fay ñëw di seet si barab ba lu fa mat a leeral ñu leeral ko bi loolu amee ñu amal ay ndaje yu bari ci biir daayiratu Rawdu Rayaahiin ngir so li ñuy sant yàlla mooy public bi ñu ko doon defal ñëw nañ fa te jariñu nañ ca bu baax a baax mais kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi muy seen yitte muy sëñ Mouhamadul Muntaqa hafidahullah waraa moom ci boppam ñëw na ca grande exposition yi gis liggéey ba naw ko loolu soññee ci euh, ak ak ak joxe ci daal ay ay digalam ci ñaar ñi nga xam ne ñoo ko seq ñu gën a jàppante loolu sëñ mu Mountakha ñëw na fa am fa waxtaan wu am solo woo xam ne jàpp naa ne ku dem ci euh, jokkookaay yi da nga ci am ay leeral yu ëpp yooyu président la république ci boppam ajjuma bii mu fi ñëwee ñëw na ba agsi ca barab ba seet si ko moom tim rafetlu ko Euh, joxe ci ay kàddu bind fa lu am solo euh, sëñ Mouhamadul Bachir mi nga xam ne mooy porte parole xalifa bi moom tam ñëw na fa aw yoonu boppam waaye ñëwaat fa ànd ak président de la république euh, ci cadre boobu Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma mi mu te ñëw na fa ñëwal na fa boppam mais ñëwaat na ànd ak président la république muy ay kilifa yi nga xam ne daanaka ñoo ngànk liggéey bi muy seen yitte ñu ciy soññee naka noonu ay autorité yi nga xam ñoo ŋànk njàngale mi ci région bi muy inspecteur d'académie ak uf inspecteur de l'éducation de la formation bu Mbacké ñoom tam ñëw nañ ca barab ba jàppee ko seen yitte soññee ci ak mbooloo mu baree bari ñoo xam ne jàng ak xam-xam seen yitte la ñoom tim guddi gu jot ba ca ne ña nga fa di dugg di génn di noter wax dëgg muy seen yitte ñu xam ne daal résultat bi ñu doon bëgg am na mooy projet Cheikh Mouhamadul Mountakha bi tey ñu baree bari xam nañ ko te xamuñu ko woon am na visibilité bu baax a baax ci jàppalante bi am diggante daairatu Hizbut Tarqiyyah ak daairatu Rawdu Rayaahin kon loolu yaakaar naa mën nañ koo tënk ci li nga xam ne moo jot a sotti ci liggéey bi ñu seqoon ak waa daaira bi di sant mbokk yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kilifa kër day mel ne mooy suba ak mu di eh, sëñ Ahmadou Badawi moom moo jiitee dayre bi eh, ñun day kàddu ñu ci sànni rek ci ci ñaar lay jëm benn bi dañuy dañuy seere ci li sëñ Mbàkke wax nga xam ne xam nañ ko ci daayira bi li des itam ñu wax ci eh, ci taxawaay bi nga xam ne dayre bi am na ko ci ci biir comité d'organisation bu dee li jëm ci seere yi daayira bi bi muy sosu fi noonu fekk wax naa ko bëgg dem ko sëñ bu xaajal waaye booba lu am solo ci luy organiser ci wàllu xam-xam bariwu fi woon kenn ku nekk rek da nga daa aw fenn fu nekk kum neex ku nekk daanaka nga wax lu la neex mu mel ni daa am daa am vide boo xamante ne bii nekkoon na fi nga xamee nag daayira bi am na diggal ci Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké ñu tàmbalee berndeel gan yi ci wàllu xam-xam foog naa loolu mën naa ne lu révolution sax ci yoonu murid euh, te maa ngi fàttaliku li li sëñ yi wax itam foog naa 2004 ci lañ tàmbali waxtaan ci ci plateau yi ci table ronde yi booba xaj na demutoon ni mu ni mu ni mu demee nii euh, loolu mu jur njariñ yu bari <coughs> ba ci jiitu mooy nit ñi gën gën nañoo xam sëñ bi ci ni sëñ mel ndax sëñ bi du du rek yow ni nga ko jàppee noonu sëñ sëñ bi daa am lu mel du ni nga ko gisee ba ni nga ko jàppe noonu la mel déedéet sëñ boo ko bëggee xam ci ay bindam ngay dellu ci njàngaleem ngay dellu waaye la nga xalaat moom sa xalaatu bopp waaye loola du jëm sëriñ bi kon ñoom indi nañ sëñ bi ci aw melokaanam loolu am na solo beneen bi itam moo di ne bépp borom xam-xam boo xam ne nekk nga ci yoonu murit xam ne am na ko ci ay ci ay njariñ foog naa ne kenn mënu ko kenn mënu ko àggale euh, mu ñu am aussi taxawaay bu bu bu rafet ci biir comité d'organisation bi ndax lépp loo xam ne wàllu xam-xam la dañ leen ko dañ leen ko dénk ñu organiser bi ay colloque organiser bi ay organiser ay forum conférence yu dul jeex loolu lépp ak waxtaan yi nga xam ne aussi ñu ngi koy def ci penc yi loolu itam delloosiwaat bokki sëñ bi ci biir màggal gi ndax ñu màggal ba mu jeex ñu baree bari sax dañ naa ah ñii de dañoo bëgg fay ñi àndoon ak Serigne Touba ndax kenn tudd leen kenn déggu leen loolu aussi foog naa fi doon kenn déggatoo nga xam ne kon aussi dafa gën a benn lewaat yoonu murit yokkaat aussi pas-pas yi xam xamale ñi àndoon ak Serigne Touba kon foog naa ne euh, daayira bi lii Cheikh Mouhamadou daxaa def dafa am fu mu ko teg ndax résultat la te sëriñ bi moom ku ko xam xam ne tànk fa mu koy teg fu leer nañ ngi lay doon kon ci loolu yi la joggi ba tax mu am kulte gi nga xam ne am na ko ci ñoom kon sëñ Ahmadou ci ci tur comité d'organisation bi dañ lay dañ lay dañ lay ndokkeel euh, di la jëroo ñaax ndax yaa ngi ci yoon wi euh, di la xamal ne daal lëkkaloo bi ak ànd gi moom dañ koy lu ñuy gën a dëgëral la lu ñuy gën a suuxat la ndax mooy li nga xamante ni mooy njariñu yoon wi li nga xamante ni bi aussi mooy am foo xam ne yóbbu na fa yoon foo xamante ne bii ñu baree baree bari foo koon ko woon ca bañ tàmbali 2002 ndax boobu foog naa ne eh, bu tuuti la woon waaye la ma genn kilifa waxoon rek Sëñ Tuubaa moom lépp loo koy defal bu ko bu ko nangoo cen na mi màggee sa nga koy xame kon mën nañoo sant yàlla wax wax alhamdulilah rabbil alamin kon ñu ngi lay ñu ngi lay siyaare bu baax a baax di siyaare tamit suñu mbokk yi ñu fekk duñu duñu guddal kàddu yi ndax moom ñëw na te mooy kilifa li kon lañ koy bàyyi rek mu ko àggale ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah taala alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu barakaatu ñu ngi leen di nuyu mbokk yi fi teew yëpp di tàmbale sunu nuyoo nag ci ak sunu ziar ci a cheikh Mouhamadul di ñaan sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér ba mboolem li nga xam ne bëgg na koo liggéey lislaam ci toolub Cheikhuna al Xadim radiallahu anhu mu mën koo def na mu ko bëggee te nu ànd ko nun ñëpp ak moom di ko ndokkeel bu baax a baax a baax ci weer wu màgg wu tedd wii nga xam ne mooy weer wi nga xam ne ci la sëriñ bi génnoon liggéey li borom bi subhaanahu wa taala ba sunu borom fay ko mayam gu réy gi nga xam ne ba ba fa soob sunu borom day yokk waxtu wu ne di ñaan suñu borom fayal nu ko te dolli ci moom xéewalam ci kattanam moom borom bi subhaanahu wa na mu toll yàlla na noonu fayal Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu di ñaan bis bi nu jëm nu fekk ko ci jàmm ak salaam te lépp loo xam ne ñaan nañ ko ci sunu borom nangul lu ko lépp loo xam ne fas nañ ko sunu borom defal lu ko ñii ñëw itam ñu ñaan ñoom ñëpp ñu ñëw ci jàmm ak salaam nekk fi ci jàmm ak salaam dellu ak jàmm ak salaam te lépp loo xam ne nit indaale na ko ci soxla yàlla na ko yàlla faj ci baaxam ci tedd ngaam ci barkeb si ci darajey sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ci barke cheikhuna al xadim di sant rek cheikh mahamadul muntaxa ni ma ko waxee sant koo xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem kon sama kàddu yëpp cant lay doon ndax sama bokk yu baax yi nga xam ne ñoo fi jiitu yor liggéey bi yëkkati wala baat bu ñu yëkkati rek xeeb nañ booba mënuñu dañ wax ne taraanga la dañuy wax ne ab cër la dañuy wax ne ab sag la waaye dañuy wax ni itam nag sas la wu diis gan waaye moom mi nu ko sas nag yan nu ko dana nu ko dana nu ko yanule dana nu ko bayle kon mu ngi koy sant bu baax a baax di sant lañ leen munazima bu baax a baax a baax a baax di ko tekki loxal Cheikh Abdoul Ahad mii di ko sant nag moom cantu boppam ni ma ko waxe woon di leen sant itam yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci taskatu xabaar yi ndax fépp fu fu fu nekk ci àddina bi fii mu nekk nii mu ngi dund màggalu tubaa nu raw sax ñi nekk ci biir dëkk bi di ko dunde ndax jëmmi doomu aadama fi mu nekk rek la mën a gis waaye liggéey bu rafet bi ngeen ci def tax na ba ñi nekk ci bitim réew léeg-léeg sax dañuy woote di wax loo xam ne yow mi nekk ci dëkk bi gisoo ko kon loolu ñu ngi leen ci sant di leen xamal ne lii leen suñu borom jox kat jumtukaay bu rëy rëy rëy la bu ama am njariñ la boo xam ne lislaam daf ko soxla te alquranul karim booy xool communication la communication la kon ku yàlla leen ngay wël ngay yëngutu ci wàllu googu war ngaa sant bu baax a baax te xam ne yaa ngi def métier mu am njariñ métier moo xam ne mënatut a ñàkk bu njëkk nit ñi dañ ko daan tuddee quatrième pouvoir waaye léegi defe naa ne da dana yokkuwaat ca kaw damaa xamul dama koy dañ koy wax ba ca jiitu wala ba ca topp waaye loolu la kon paaka ñaari boor la bu mën a jariñ la waaye itam am na geneen wàll kon ngeen xam ne sunu borom daf leen a jox responsabilité ngeen di jàllale lépp loo xam ne lu am njariñ la ndax yar mënul leen cee ñàkk yéen yar sax daanaka fi mu nekk nii gone yi gën a tuuti ci ci yéen la jëlee xam-xam yéen jàngale ndax jàngalekat yi ak jàngkat yi dañ koy jëfandikoo mënatuñ koo ñàkk kon nag ñu ngi ñaan suñu borom yéen itam defal leen tawféex di leen sant ci bis bu tedd bu màgg bii ci seen jëf ju rafet ji nga xam ne ñu ngeen koy jëf di ñaan suñu borom may nu yàgg fee teew lu bari lool te ànd ak jàmm ci barke màggal gi yëpp yu tëj yuñ fi am lépp lu ñu fi ñaan yàlla na ko suñu borom nangul ci barke Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu